abonné wu leen ci Buzz Media TV la chaîne des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne dal leen nag jàmm mbokk internet yi baaxoo di topp Buzz Media TV la chaîne des patriotes bu leen fàtte abonné dal di bës cloche de notification bi ngir bépp actualité bu ñu dugal yaay doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a jotu ñu dal di doore xabaar yi ak nouvelle bi nga xam ne mi ngi tukkee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di soxnay Ousmane Sonko ñu nangoo ci ñoom xabaar bu wér buy firndeel ne li journaliste yi daan lam-laame naan Ousmane sunko dafa nekk ci grève de la faim bu méttee métti ñoom dal di nañu wedde lu ni mel ci yan conséquence nag la ñu déggee lu ni mel ñoom ñoo doon def benn antenne contre Pape Alé Niang moom soxna journaliste bi ñu ràññee lool fii ci réewum Sénégal te dañu yëkkati kàddu di wax ne lu ci ëpp ci journaliste wu dañu sosal si nga xam ne mooy sunu borom kër Ousmane Sonko ñoo ngi yëg ak tanam mos nañ fa dem seeti ko gis nañu ko na nga xamante ci nii noonu la ko daa gisee rek moom daal ñoom soxna usman Sonko la ñuy ñaan moo di sunu borom da di leen ko sàmmal ba mu dellusiwaat ci seen loxo waaye nag ñoom it ñoo ngi ñaan sunu borom attal leen ak nguurug Sénégal Buzz Media TV